ma daan ko da nga ne Yaxya daal di waaw ñaar ñoo xam ne bu seen style bokkuñu soo indee Gris man jaw dinaa la daan ñun tamit loolu la ñu nar daan ko ba toog si kawam rek Balla la du moroom moom na ko nangu waaye Gris mun na bëre de du ñu bëre juróomi minute mooy ñu bëre ñu daan ko si bëre ba toog si biir bi rek géejawaay benn bloc la dama bokk si ñi ñëw jàppoon barabu sànd course yi a centenaire bi di ko jël di ko yóbbu géejawaay géejawaay yàggul Gris Bordeaux bi muy premier combat bu nit waree ci am na yoo xamante nax sa bopp am na ñoo xamante ne buñ jàppul sa gaño duñ bëre. Balla Gaye parce que Fass am na ndam ci kaw ba léegi. waaw ah, amul waaw lijjanti leen loolu. mais nekk bëre moom ñeewu ñu si kenn. waaw sama papa na fa. man man man bu ma bàyyi bëre je peux être un entraîneur de niveau ci sport de combat Balla mënu sax entraîneur bokkuñu mag bokkuñu sax ay dimension. que bu ma nante non bu yàggee da nga yaakaar ne sa asamaan bu doon waaj da nga koy téye. non amul problème. Ah. loolu yàgg naa ko dégg c'est pas une première. ci domaine bi ngay toll la quoi en fait. ay niveau la. mu ñëwee dama ci poobar def ci def ci kaani safal ko ma saf saf. xam ne moom dafa fekk moom saa su ne day tàng man sama jékki-jékki tàng de damay tàng tous les pour muy leer. gars yi dañu bëgg mbër mu ter mbër mu mbër mu wuyu ci bés. bii man li ma bëgg moom moom lay def. làmb ji dina ci de coono bu metti mënul bañ a ñàkk. yooyu daal du yëfu góor pour man arbitre prip doxal ci kaw adversaire bi nga taxaw. non dana xoox dana sonn parce que bu yaakaar ni ci ñaari minutes lay bëri day sonn danaa ko xooxloo dana sonn. mbokk yi yéen ñi nekk ci diaspora bi. lamb ji en live lay doon pay per view ci seen affiche point com. waaw. Eh, Bousse. Bousse père dafa ñëwoon jënd si ay billets daa mel de seen seen maire. ah gis nañ Cheikh Ba jënd 1500 billets démb te gis Ahmed Aïdara ñëw jënd 3000. waaw Ahmed Aïdara jëndal nañu billet. ñun amuñu ko dul Balla Gaye. ñun Balla Gaye dëgg rek lañu ñu am. Ahmed Aïdara maire la. député la ñu ngi koy félicité. naan ko macha allah félicitation. doomu géejawaay la comme ni ñoom Aline Sall nekkee doomu géejawaay ñoom Néné Fatoumata taal ñoom laat Diop. ñoom ñëpp ni ñu nekkee doomu géejawaay noonu la ay Aïdara nekkee doomu géejawaay mhm. léegi nag moom bu ñëwee soutenir Balla Gaye amuñu lu dul def billets yi lañ jël si woon. cent mille billets waaw amuñu ñu def lu dul bég ak bégle mhm. kontaan xam nga ci moom mhm. ñu ngi koy ñaanal jàmm ñaanal ko selaam di woo ñëpp nag comme ni mu ko defee nii ñoom laat Diop ñoom. ne ne Fatoumata Tall ñoom Aliou noonu la ko insha rabbi xam naa Aliou Sall dina woote léegi ne ne Fatoumata Tall woote ñu jëndal Balla Gaye 2 parce que ñoom ñëpp bëgg Balla Gaye 2 parce que Balla Gaye doomu Géejawaay ñaata a xaar lañ mën a xaar ci temps Balla ku ne xam na ni moom moo mooy feesal fii fii yaakaaroo leen ku dul Balla Gaye mu feesal ko hmm. bu dee jënd perpévu bu dee ay pay-per-view yaakaaroo leen ku dul fans Balla Gaye yi ñu jënd pay-per-view seen yaakaar yëpp ci Balla Gaye ngeen ko teg kon ñaanal leen ko Balla Gaye muy am jàmm di am wér di am ndam moom mooy làmb Balla Gaye ku muy bëreel moo lay may coow moo lay buux. loolu de la. yow lan mooy sa teewaay fii ci arène bi da nga ñëw pour suul si ay gàllaaj wala lan. laa jël woon maa ngi nii dem. mais bokkoo ci préparation mystique yow. non non non man laa sama xarit laa. non non eh, jëf mbokk internet yi mbokk amateur yi yaakaar naa ni léegi coow lu jeex diggante Balla Gaye numéro 2 ak ki nga xamante ne moom mooy Gris Bordeaux waa Gaston production ñu ngi nii installé di di takk li nga xamante ne moom mooy bâche yi ah di suur xar fa fu fay béjjëni ci poche yi ak yeneen ak yeneen ndax makan waaw mooy loolu dafa mystique temps yi quoi français la woon bi mu soog a dugg ci làmb ji mais léegi. léegi moom vrai vrai vrai vrai vrai la makan maa lay nuyu bu baax di la ziare ñu waxtaan tuuti ci li nga xamante ne moom mooy dernier réglage yi Gaston Production nekk. waaw Lamine yow man ngay sosal ah. yoroo fi ana béjjën bi. mi ngi nii mi ngi nii preuve tubaab preuve la xam. bii fu mu jógee. bi mu ko lii ne wax dëgg mënul ci man dara. moom joof dire vrai rek. macha allah. Hmm. di nuyu ñëpp ah. pense que pare nañ. Hmm. xaar euh, Gris Bordeaux. mu ñëw ak nu mu daan ñëwe Balla Gaye mu ñëw ak ni mu daan ñëwee côté A bi mooy côté Balla Gaye côté bii mooy côté Gris Bordeaux mhm. ci biti suñuy ñëw dana am ñuy taxaw naan leen fii mooy Gris fii mooy Balla police mooy gérer intérieur stade bi mhm. gendarmerie mooy gérer extérieur stade bi mhm. Gris dinañ ko jële ba këram gunge ko mu ñëw arène nationale Balla dinañ ko gunge moom tamit mu ñëw biir arène nationale képp ku yàqkat bu yow waree nga toog sa kër def leneen mm-hmm. ku bëgg na bégal boppam mën naa ñëw sañse seetaan si làmb ji mm-hmm. ndax Gaston Production moom tamit du balla ak gëri kase ñooy ñëw de Gaston Production moom it dafa am nu muy ñëwee mm-hmm. ci lay euh, drapeau Gaston Mbengue di nekk am na benn surprise suba incha di ngeen ko découvrir Euh, xam naa ni amateurs yi moom ay njëkkante lay doon ndax waa Géejawaay du ñu nangu waa Fass ëpp leen fi waa Fass it du ñu nangu waa Géejawaay ëpp leen fi ñii ñoo gën a jege. donc xam naa ni waa géej waa ñee ndakaaru ñoom it denañ jéem a xool naka la ñuy def ba njëkkante ñoom. Mm-hmm. man daal dix heures laay ibbi sama bunt. Mm-hmm. ku bëgg teel a ñëw. parce que Gris Bordeaux moom nee na 6 heures du matin la bëgg a ñëw. moom daal 10 heures laay bi buntu bi Gris Bordeaux moom mënul fay ñëw 6 heures du matin. non buntu bi pour pour pour supporters yi la. Ah, supporters yi mais suñu ñëwee dañuy rang bu sonn rek nañ bàyyi ba 10 heures. waaw mais moom moom en personne xam nga combat passé 9 heures la ñëwoon stade. non loolu dootu ko defaat. loolu dootu ko defaat ah keroog wax na ko rek ci ëpp. non dootu ko defaat boobu xam naa tegtal la woon rek moo taxoon mu ñëw. mais tegtal bi bokkul. lan moo tax Gaston production fonk sécurité CNG ñoo leen di obligé bu ngeen di tëggee combat yu mag yi ñun leen indi leen ñu euh, euh, nombre de personne bi wala yéen yéen a jël seen responsabilité boobu rek fonk sécurité di andi ay takk der yu bari non Gaston moom suy ñëw Gaston production day ñëw ak tous les moyens possibles ak dooleem du dara moo tax ñuy wax la puissance d'un leader. donc euh, bëgguñu benn faay am. dañuy jël suñu matuwaay yëpp ba nga xam ni que bëgguñu am daal benn surprise. ndax soo gisee stade bi gis nga bandrol yi sponsor yi macha allah foog ñu sécuriser loolu tamit ndax sponsor bi dafay soxla image am te euh, image sponsor dafa euh, àndul ak euh, ñu brutal wala yàqkat wala leneen mm-hmm. lépp dafa war a rafet mm-hmm. mooy tax sponsor yi di ñëw lu tax sponsor yi am confiance ci Gaston Production loolu tam ci la bokk. Mhm. te loolu nag bëgguñu mu dañ. loolu dinañ ci liggéey gën cee liggéeyaat ba yeneen sponsor tamit gën a mën a ñëw. Mhm. au passage ñuy nuyu waa Distingo nga xam ne ñoo may làmb ji. sponsor leader. waaw moom ak euh, Alib Delia ah euh, CDC CGIS. AIBD Jador ñuy remercier ñëpp di gërëm ñëpp di woote jàmm suba. di wax nag tamit que le meilleur suba daal damaa bëgg mu nekk une belle fête. incha allahu rabi noonu lay demee léegi li ma la bëgg a laaj mooy Ahmed Aïdara ak ki nga xamante ni moom mi ànd ak Balla Gaye numéro 2 ndax dañu ñu dëggalal ni dafa jënd lu toll ak 3000 bi. Ahmed Aïdara jënd na billet yu bëri. bàyyi ma ne jënd na billet yu bëri rek. waaw jënd na billet yu bëri. côté Gris Bordeaux kan moo ko jëndalagul. ah Gris Cheikh Ba jënd na. Hmm. Cheikh Seck jënd na. Hmm. ak ñeneen ak i ñeneen. côté Guédiawaye itam ñi ngi xaar ba léegi fii ak demain matin xam naa ni dinañ xaaju. Hmm. waaw Aziz Ndiaye itam euh, mi ngi noonu defe naa di gisanteeg pa xam naa ni dana am lu mu ci jot a jënd. waaw. kontaan ñuy woo yeneen autorités yi nag am parce que bëri nañ Guédiawaye du Ahmed Aïdara ak Aziz Ndiaye rek fa nekk. Hmm. gars yi nañ ñëw jënd si. non dinañ ñëw wala koy def tamit defaluñ ko Gaston production. seen waa gox lañ koy defal. Hmm, pour muy leer. waa Fass la la même chose. defaluñ ñu ko de. seen waa gox yi lañ ko defal loolu benn message bu may passé la rek entre guillemets quoi. jërëjëf jaajëf. instant bi kan moo ëppalee gu mu jënd ay be. fu mu nekk nii ah waa fas xaacu nañ de Fass Ndakaaru. Ah. xaacu nañ de. xaacu nañ pour l'instant waaw leer laa la waa Fass Ndakaaru moom xaacu nañ. kon waa géej waa jóg leen bu sëkkee coba gi nee ci ginnaaw nee na waa fas Ndakaaru jënd guñ nañ ñu ëppalee gum waaw bu amul nekk ba xaacu nañ li nga wax liñ ci dégg mooy. xaacu nañ daal maa ngi xaar ba léegi waa Géejawaay. kon waa Géejawaay seen côté ngi ne suba na fees waa Fass feesal seen côté ba suba. yaa andi woon Yékini ma daan ne Yaxya daal ne Gris waaw ñaar ñoo xam ne bu seen style bokkuñu. soo andi Gris man jaw dinaa la daan. ñun tamit loolu la nar daan ko ba toog si kawam rek. Balla Gaye moroom moom na ko nangu. waaye Gris mën na bëre de. du ñu bëre juróomi minute. mooy ñu bëre ñu daan ko si bëre ba toog si biir bi rek. géejawaay benn bloc la ñu. dama bokk si ñëw jàppoon baragu sànd course yi ak centenaire bi di ko jël di ko yóbbu géejawaay géejawaay yàggul. Gris Bordeaux muy premier combat bu nit waree ci am na yoo xamante ne nax sa bopp la. am na ñoo xamante ne ñu jàppul sa gañoo duñ bëre. Balla Gaye parce que Fass am na ndam ci kaw ba léegi. waaw lijjanti loolu. mais ñun écurie Fass bi nekk bëre moom ñeewuñu si kenn. waaw sama papa tas na fa. man man man man bu ma bàyyi bëri je peux être un entraîneur de haut niveau ci sport de combat bale mënu sax entraîneur bale bokkuñu mag moom bokkuñu sax ay dimension moom wax dëgg yàlla ngaaka laa parce que bëgg ma doon nante que nante da lay sonal ah. bu yàggee da nga yaakaar ne sa asamaan bu doon waaj da nga koy téye non amul problème ah. yàgg naa ko dégg c'est pas première ci domaine bi ngay toll la quoi fait ay niveau la bu mu ñëwee dama ci poobar def ci akara def ci kaani safal ko ma saf saf xam ne moom dafa fekk moom saa ne day tàng man sama yaram du jékki-jékki tàng de man damay tàng tous les pour muy leer. gars yi dañu bëgg mbër bu ber mbër mu mbër mu wuyu ci bés. bii man li mu bëgg moom moom lay def. làmb ji dina ci def coono bu metti mënul bañ a ñàkk. yooyu daal du yëfu góor pour man arbitre prip doxal ci kaw adversaire bi nga taxaw. non dana xoox dana sonn parce que bu yaakaar ne ci ñaari minutes lay bëri day sonn danaa ko xooxloo dana sonn. mbokk yi yéen ñi nekk ci diaspora bi lamb ji en live lay doon pay per view ci seen affiche point com